salaamaaleykum mbokk internet yi tey jii rek dañuy ñëwaat si li nga xamante ni mooy combat bu amoon foofee ca arène nationale diggante kookee bu mbuur ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye bu géejawaay waaye nag combat bi nag nekkoon na combat bi nga xamante ni combat bu amateur yëpp doon xaar la diggante bombardier ak ki nga xamante ni mooy bala gay bu mbuur ginnaaw ba arbitre bi sifflé rek ñoom ñaar mbër yooyu rek dañ doon léewtoo waaye nag ginnaaw loolee am na lu ñu doon def muy ay xeex di dóorante ñoom ñaar di dóorante ba Balla Gaye numéro 2 sax moom moo doon tenté li nga xamante ni mooy ay action waaye nag dafa mel ni bombardier Bombardier euh, dafa mujj euh, diis euh, ginnaaw ba ñu bëree li nga xamante ni mooy six jàpp sept minutes mu ñoom ñaar rek dafa nañ ay action waaye nag action ba ci géew ba sax la commencé waaye dafa dem sa saaku ya si la si toor nduur ne ñaari mbër yi kenn daalul sa morom dañuy sifflewaat li nga xamante ni mooy combat ba waaye nag bañ ko sifflewaatee ñoom ñaar def nañ li nga xamante ni mooy ñaari mbër yooyu rek ba ñu bëree ginnaaw quinze minutes si li nga xamante ni mooy si mooy foofee ca arène nationale mu doon combat boo xamante ni Gaston Meng moo ko tëgg waaye Euh, match nul euh, waaye nag avant ñu match nul euh, kii di Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 dañoo bëre seen 15 minutes ba ñu bëree 15 minutes ñaari mbër yooyu rek si lañ dem gisaat li nga xamante ni mooy seen coach li nga xamante ni mooy conseil mu doon combat boo xamante ni combat bu ñëpp doon xaar la si wàllu bëri si wàllu xeex naam sax am na si waaye nag ko doon xaar muy Balla Gaye numéro 2 moom nag daful li nga xamante ni loolu la waroon def wala la mu doon def bu njëkk rek ngir ki nga xamante ni mooy Bombardier waaye nag ginnaaw ba ñu ñëwaatee si li nga xamante ni mooy seen combat combat boobu ñoom ñaar nag si lañ xeex xeex bu métti ba Balla Gaye euh, numéro 2 euh, moo yóbbu ki nga xamante ni euh, mooy bombardier foofee li nga xamante ni mooy blessure mu doon combat boo xamante ni a doon enjeu ba ñu bëree li nga xamante ni mooy vingt minutes ñoom ñaar ku nekk am na li nga xamante mooy avertissement bu ñu si avertissement yi rek nag ki nga xamante ni mooy bombardier dafa mel ni a néewle li nga xamante ni mooy ay avertissement ginnaaw ba mu amee trois avertissement moom euh, Balla Gaye numéro deux dafa am euh, li nga xamante ni euh, mooy avertissement moom nag si la xamante ni lamb ji jeex na moom bombardier di déglu ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro deux mu def action ba juum wala sax mu taxaw noonu rek ba temps bi jeex mu jël li nga xamante ni mooy ndam li kon mbokk yi Balla Gaye numéro deux ñàkk na si kanamu bombardier ginnaaw ba mu amee li nga xamante ni mooy juróom avertissement si combat combat boobee rek nga xamante ni règle règlement bi rek teg ku am euh, juróomi avertissement rek da ngay ñàkk li nga xamante ni euh, mooy euh, combat bi kon Balla Gaye Bombardier ñoom ñaar rek seen combat neexoon na fii ci arène nationale tombeek le premier janvier atub 2021 mbokk yi kon mun ñu leen di fàttali rek kii di Bombardier daan na Balla Gaye par par li nga xamante ni mooy avertissement